à CTV, la chaîne des patriotes. xam nga Pape Djibril Fall moom euh, taalibe gi ak yar bi mu wane tax na Sénégal gi yëpp euh, ak taalibe Sëñ Tuubaa yëpp amoon ci moom yaakaar euh, li mu am ci élection yi li ko may mooy yaakaar gi Sénégal yi am ci moom léegi su ñu demee nga xam ne sore sorewul dara gis ay nit yoo xam ne ànd ak ñoom tàmbalee ndool yi ñu génn ne daf leen war lu mel ni comme am solo Sidibé ci euh, parrainage yi. Mm-hmm. ñu defaat ñu doxaat tuuti am keneen ku ñu wax du Thiaw. Mm-hmm. di wax ne ci bannière ci récépissé ci la demee élection euh, mm-hmm. di wax encore ne moo ko joxeel caution di wax encore ne da ko jox ay parrainage sax yu ëpp yoo xam ne moom amoon na ko. Euh, loolu dafay nekk ak wor euh, ba tax na moom loolu day bokk ci liy yàq carrière am parce que politique boo ko débuté noonu boo ko débuté noonu rek euh, fi nga bëgg objectif bi nga bëgg atteindre doo ko atteindre ndax soo bëggee atteindre si objectif politique massification la waaye du soustraire mooy da ngay fexe chaque fois li nga am di yokk li nga am chaque fois dafa war di yokk waaye heure bu amee écassure kii dem fii kii dem fii kii dem fii dana mujj euh, di nga am départ mais du am arrivé euh, ba tax na comme lu ñu naan rien n'est trop mu ngi door tàmbali na fexe xool ndaw la lu engagé politique te bu fekkee ne dëggal na dëggal na jubal mën na am lu kawe njortam ci politique parce que jeune la boo xam ne ñu bëri dañ naan patriote daf bëgg dëkkam ndax naka jekk bu mosaan jël position dañuy gis ne askan wi la àndal euh, ba jamono bi ñu toll ñu gis ay rumeur uh-huh. euh, ci Macky Sall recevoir na ko uh-huh. Youssou Ndour jox na ko xaalis nangam nangam nga xam ne Sénégal gépp lañu ko déggandoo uh-huh. kon xel day commencé tey ci loolu te ñun daal am nañ conseil comme sénégalais boo xam ne euh, am na xalaat bu rafet rek du ko jox na xoolaat doxalinam bu baax xam li mu bëgg xam ne nit ki bu muñul du am li mu bëgg muñ nag ci ndorte kuy politique mooy faveur yi ñu lay jox yi nga yi nga mën a am lu jógee ci côté état ak côté euh, ay privilège mm-hmm. bu mu la soxal na nga nekk sa service service su sa peuple côté sa peuple loolu mooy tax ba nga mën atteindre objectif boo xamante ne nii da dem ba mën a sax yor dëkk bi jiite ko waaye suñu commencé rek mu commencé am ay cassure ñi mu àndal kii ne def maa war kii ne def maa war kii ne def maa war loolu moom baaxul ci euh, maanaam kuy débuté baaxul ci euh, koo xam ne moo ngi door a tàmbali dara loolu daal mooy conseil boo xam ne euh, xalaat la dañ ko xalaat daal wax ko daal. mais cheikh bi est-ce que jàpp nga ni tey euh, moom Pape Djibril Fall ku sénégalais war a jox confiance la ndax li ñu koy tuumaal itam ci mbirum wor euh, dafa bari. ASID TV, la chaîne des patriotes. waaw xam nga euh, wor moom mhm. buñ ko étiqueté nit rek mhm. kon confiance day daal rocceeku kon moom na fexe ba mhm. loolu nga xam ne fi ne nii commencé na ñu koy ñu koy gaafal bañ a nekk gaafam mu góorlu kem kàttanam ci li nga xamante ne nii moo nekk ci kanamam mm-hmm. doxee ak sincérité nekk ku sincère mm-hmm. euh, boo àndeek ay nit ngeen sumb dara mm-hmm. ñoo daan woo di la jot euh, daan la seet di la gis daan la soxla di toogandoog yow na fexe góor góorlu ba loolu ba mu dakk ndax xatagul maanaam même fu mu bu nekkoon bu ñu ko soxla doon député sax bi mu nekk assemblée. téléphone am warut waru warul fay. bunt këram warul tëju. Mhm. ndax nit ñi boo leen soxlaawee da dem ci ñoom di leen fekk ji. Mhm. say bunt du tëju ku la woo jot la foo taxaw wax mhm. boo demee itam ba yàlla def la nga doon wut nga am ko loolu na ne waaye bu mu dakk waaye tey falu naa tey ngoon nga nga fay sa téléphone nit ñi kenn jotatu la falu naa tey ngoon nga nga changé ñi nga doon toogandool changé ñi nga doon waxal changé itam fréquentation loolu day tas yaakaar waaye joxewul yaakaar te ñi wax ñëpp loolu lañu wax dañ ne mun euh, mënutuñ ko woo jot ko suñu woowee ñeneen lañ jot dafa nekk séminaire dafa nekk réunion wala dafa jàpp te bi loolu amagul ñoo doon jot bi loolu amagul ñoo ngi doon gis bi loolu amagul ñoo ngi wax ak yow kon bu lool amee rek changement amee yaakaar day tas te yaakaar bu tasee eh, leneen la tas yaakaar moom baaxul. ASID TV, la chaîne des patriotes.